ci turi yàlla bi nga xam ne borom yërmande la bu jéggi dayo bu kenn mënut a natt maa ngi koy màggal maa ngi koy màggal lu bare bare bare maa ngi koy sant cant gu bare bare bare maa ngi koy sàbbaaxal suba bi jant bi sow ci kàddu laa ilaha illa kenn bu yàlla ku moom moom dong moo di yàlla moo di ki nga xam ne nguuram gi boolewu ci kenn yàlla màgg na yàlla yeyoo na cant bu amul àpp yàlla ñu ngi koy màggal tànk garab yi ñu ngi am xob tànk garab yi ñu ngi meññi di doxe doom ñu ngi koy màggal tànk que yi ñu ngi koy wooral ñu ngi woor ci weer wu màgg wii nga xam ne si lañ jóge di weeru koor te ñu um seen koor ñu dagg ñu dagg seen koor ñu ngi màggal suñu borom tant jaamam yi ñu ngi taxawal naafila ñu ngi màggal suñu borom tant que jàkka yi seen làmp yaa ngi tàkk ñu ngi màggal suñu borom tant que jaamam yi ñu ngi koy fàttaliku ñu ngi zikar ci làkku rafet bii di làkku arab làkku leer nañ yàlla màgg na mbokk yi mbokk yi yàlla màgg na ñu koy màggal suba ak ngoon mbokk yi yàlla màgg na ñu ngi sax baaxal yàlla moom mi nga xam ne mooy dekkaliku de wante itam mooy rey luy dund moom mi nga xam ne moom yàlla lépp lu am xam-xamam wër na ko ndomb dara réeru ko ñu ngi koy màggal màggal bu amul àpp wante itam di julli ci yonentam bu teg bi sallallahu alayhi wa julli bu amul àpp yal na yàlla yokk leeram ah mbokk yi ah, cant ñeen na suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kàttan moom mi nga xam ne dafa bari sutura moom mi nga xam ne lu ko jiitu dara new fa wante gannaaw moom dara newul ñu ngi koy màggal suñu borom mu màgg bi moom mi nga xam ne mooy borom kàttan wante ñu ngi seede ne yàlla kenn la ci kàddu laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la nguuram gi bokk ko kenn seede boo xam ne moom baatu laa ilaha illa ku ko saxoo ah yow dey mbugalu njàqare ba nekk ci bàmmeel doo ko gis ñu ngi seede seede boo xam ne moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi jaamam la te ndawam la moom yàlla mi nga xam ne daf koo tànn moom muhammad sallallahu alayhi daf koo tànn ci askan wi gën a baax bi gën a rafet ci lëpp sa la ko tànnee mooy banu Hachim <coughs> yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla wàcce yokk jàmmam ci moom ak ci jabootam ak sa euh, saaba ya doon ànd ak moom yéen nit ñi jàpp leen ne bés bii bés bu màgg la bés bu tedd la bés la boo xam ne yàlla daganal na nga lekk ci wante it tere na nga woor ci mu di bés boo xam ne ci la weeru koor bu tedd wa jeexee wante it weer yi nga xam ne ñooy weeru waajal mag aji makka ñoo taxaw muy euh, shawal ah zul qaxda et cetera zul hijja ñëw di weeru aj waaw mu ne nag jamono boo xam ne nga si sabaaxal yàlla di ko gërëm di wax la ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd yuxyi wa yumiit wa huwa ala kulli cheyin qadir subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام as bale loolu ngay wax ci journée bi ba mu loolu sama tupp lay kàttan mu ne loolu day boo ko defee yàlla dina kontaan ci moom yàlla bi nga xam ne moo moom la namm mu tànnal leen diini diine jii di diine lislaam mu dëgëral leen ci may leen ci doole mu di diine boo xam ne mu ngi ko tuddee diine lislaam tuddee leen yéen ay musulman mu ne diine ji dafa mel ni ab buum boo ci jàppee ba dëgër ah jàppal na yow foo toll xiiwal rek muy wàcc ci yow mu ne ki nga xam ne dafa namm àllaaxiram neex daf koy waajal waajal boo xam ne bu ko defee dina dajeek suñu borom mu gërëm ko te suñu borom ku mu gërëm daf lay dugal aljana te bu ngeen koy génnee nangeen ngeen tànn li gën a baax li nga xam ne yéen moom ngeen bëgg taamu ko na ngeen ko jël ngeen joxe ko waaw mel ni ceeb rek ceeb dafa am qualité yow yaa nga fa ceeb qualité moyenne ak ceeb qualité bu neex nga ne ah je vais me débarrasser du du lii de seconde qualité de seconde qualité joxe ko tàbbu moom bàyyi fa sa ceeb bu neex yàlla na bëggul loolu ceeb boobu nga xam tàmm ci ngay génne asaka waaw bàyyi fa beneen bi moom asaka boobu leen mooy far say bàkkaar wante itam mooy bunt yàlla nangu sa koor waaw wasi wasila yaqubalu siyaamikum ama waxtu ixraajiha fa huwa qabla duxul fi salaati l iid al fitr mu ne ba ban waxtu lañ ko joxe mu ne nanga ko joxe bala ñuy taxawal julli bii kon képp ko xam ne joxewuloo ko woon benn nége ni amuloo asaka amuloo mburum koor saraxa nga joxe te bu boobaa sa koor gi dañ koy aj mu càng diggante suuf ak asamaan nañ ci yàlla musal <coughs> waaw nu mu toll nu mu toll bu dee pepp la ne day toll ni saa min xaalibi xuutil balad ci pepp yi nga xam ne moom la ñu gën a baaxoo di ko dundee ci réew ma sa nga koy génne lu tollook saa saax nag weerante dafay am am na ñu ne un kilo six cent la am ñu ne un kilo huit cent am ñu ne deux kilos la am ñu ne deux kilo cinq cent ba deux kilo six cent waaw lu si mun di am daal li dina néew boo ko munee wees nga def ko ndax arab yañu wax al xasan al axsan afdalu min al xasan li baax la ko gën gën a baax moo ko gën moo moo gën kon boo ko mënee génnal deux kilos deux waaw mu ne euh, génne ko itam lu tolloog prix ceeb boobu leen mu nga ko joxe ci xaalis foofu ulama yi dañu see weerante am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ñi ko dàq dañu wéeru si ne yonent bi sallallahu alayhi daaw mos mos koo génne si xaalis saxaabaam itam mosuñu ko génne si xaalis waaw ñoom foofu lañ ko wér waaye jamono lay dox du lu yonent bi defoo rek mënuñ ko def bu daganee macha allah nit ñi réew moo dem am na lekk yu ñuy lekk yoo xam ne yónni ba certainement lekk ko waaw et puis jamono xaalis lañ nekk jamono xaalis lañ nekk ni xaalis yi doxee fi mu nekk doxewu woon si jamono yonent bi salaa salaam jamono yonent bi salaa salaam li ëppoon mooy système de troc weccante marchandise et cetera cetera mais fi mu nekk nii koo jox xaalis mais lu ko neex mu jënd bu fekkoon ne jox nañ ko ceeb bu bari ay dugub yu bari te amul xaalis bu mu ko toggee du ko arrangé mu ne nga koy jox yaa ngi koy jox euh, faqiir yi ñuy néew dooleel toog seen kër ruusa yalwaani ñoo ñuy priorité par rapport ak miskin yi nga xam ne dañuy wër di yalwaan mais si biir faqiir yooyu leen sa mbokk moo ko gën a yeyoo boo amee sa mbokk moo xam ne faqiir la demal nga jox ko sa asaka bu ko defee nag miskin yi soog a ñëw waaw ñeneen ba ci miskin yi kan la war moom sadaxa moom mburum ko kan la war ki mu war mooy képp koo xam ne euh, yow man nga ko mën nga ko boo ko mënee mënal ko say jabar mënal ko say doom mënal ko doo xale yi nga xam ne dañ lañ la ko dënk dañ la ko jox nga doomoo ko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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقض لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولقه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 walhamdulillahi rabbil alamin amin amin